alaikum wa rahmatullah chers internautes nous euh, ñu ngi am contentement bu baax baax di chaîne leader TMP euh, di bëgg et it fidélité ak ñun euh, tey tamit une deuxième tombe ñu ngi ñëwaat tamit seet c'est Serigne Mahamadou Mbaye fii ci Azur n'est-ce pas waxtaan ak qui waxtaan ak moom de ci mbirum Lastar bu leen fàtte ne ponk waaye lista lasta dafa nekk loo xam ne lu yaatoo yaatu la loo xam ne kenn mënu koo ndar képp kenn mënu koo jeexal waaye tey nag ñu ko ne yàggali ñi ñi fas yéene yàggali ak moom nest ci waxtaan boobu n'est-ce tey nag euh, sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatulah euh, Mouhamed ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di leen dalal di nuyu waa TMP di nuyu waa senegal yëpp rawatina kilifa diine yi di nuyu mbooleem biit réew ak biti réew di wax ne waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, sëñ bi jërëjëf waaw euh, ci fàttali rek waa semaine bee passé lañ ñëwoon ci yow nii ñi ñiy waxtaan ci wàllub euh, asrar n'est-ce pas mu nekk xam-xam boo xam ne yàlla du ko may n'importe ki comme ni ma ko waxoon yoon bu la passé nest pas tey nag sëñ bi dañ ñëw ci waxtaan ci wàllub zulmaniya ak nuraniya n'est-ce pas te zulman ya buñu ñu bu ñu ci société bi gaay dañ ko étiqueté lo xamné ne xam-xam bo xamné xam-xam bu yàlla gërëm la ndax mom la wax xam-xam bu ñuul bu dé nuraan ya nag moom la ñuy sama mbokk ibadu yi n'est-ce pas dañ ci critiqué lu bari bari bari ñu bëggon tey nga jox ñu ay wa wa alayka salam alhamdullilah li jëm ci walu nuraaniya ak sulmaniya dafa nek xam-xam bo xamné ci euh développé lu yaatu la ndax nit ki ci boppam dana nekk nitu sulmaaniya nit ki ci boppam itam dana nekk ya bala ngay dugg ci xam-xam bi nit ci boppam sax dana nekk nit boo xam ne nit ki ci boppam moom dana nekk ya ci wàllu xam-xamu sulmaaniya ak ya nag niñ leen mën a tàqalee mooy bépp xam-xam boo xam ne génnewut ci alquran balluwaayu xam-xam boobu nekkul alquran mën nañ kaa tuddee sulmaaniya bépp xam-xam boo xam ne ci alquran la ballee mën nañ kaa tuddee ya waaye nag su fekkee ne ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne sulmaaniya mooy liggéey bu bon ya mooy liggéey bu baax loolu erreur la ndax ci biir alquran mën nga ci liggéey liggéey bu baax mën nga ciy liggéey itam liggéey bu boo xam ne euh, yàlla gërëmut ko ndax lii di dëddale tey soo ko waxee nit ki mun naa yaakaar ne loolu sulmaaniya la te dëddale am na ci biir alquran nit a ngi jëfandikoo alxuraan te du ci boole leneen te mën cee def dëddale boo xam ne daf koy def tey tey gis ko tey kooku boobaa liggéey la bu bon taxut nag alquran nekk sulmaaniya waaye moom waa ji si boppam boobaa moo nekk sulmaaniya ndax moo jëfandikoo ci biir alquran loo xam ne yàlla gërëmut ko euh, moom moo tax sax ci benn hadis yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne bëri na kuy jàng alquran te fekk alquran mu ngi koy jëfandikoo mooy ngay jëfandikoo ci biir alquran loo xam ne yàlla gërëmut ko sulmaaniya li gën a ëpp si ñi koy wax mooy xam-xam boo xam ne wàllu béjjën la wàllu petaaw wàllu ren wàllu sunguf loolu moo gën a nekk xam-xamu ya ndax duhut xam-xam boo xam ne da ngay bind alquranul karim jox ko nit ki am na nag ñoo xam ne ci biir lasaraar dañuy am secret yoo xam ne ci biir alquran la yoo xam ne alquran ngay bind waaye du tere danga ko boolee garabu nàngam ak nàngam te dafay jëriñ loolu nag du tax mu nekk sulmaaniya loolu nuuraaniya la nu ma la ko mën a tàqalalee sulmaaniya mooy loo xam ne génnuwaay bi nekkut ci alquran nuuraaniya mooy lépp loo xam ne ci alquran la bale loolu ya lañ ko mën a tuddee macha allah sëriñ bi euh, tey tamit ci beneen leeral euh, sunu mbokk ibaadu yu bëree bëri bëri bëri euh, du ma naan sama mbokk ibaadu mais borom xam-xam yu bëree bëri bëri ñoom nanguwuñu takk téere dañ naan takk téere bokkaale yàlla la n'est-ce pas léegi nag loolu nag bëgg nañ tamit ngeen am ñu ci ay leeral baax a baax ci wàllu takk téere waaw loolu sax gàtt xam-xam la ndax gàtt xam-xam ci dof la bokk ndax nit ñi ñetti niveau rek lañ dafa am koo xam ne maqaama inkaar la weddi la la la amee maqaama inkaar inkaar mooy loo xamul rek weddi ko am na koo xam ne maqaama tawaquuf la am lépp loo xam ne xamagut ko def si taxaw ba bis ba mu koy xamee am na koo xam ne nag maqaama tasdiix la yore lépp loo xam ne dégg na ko rek daf koy dëggal ñi nga xam ne dañuy weddi ne takk téere dafa xaram ndax ñëwut ci sunna loolu réer la ndax ñooñu ñëpp ñu ngi jëfandikoo loo xam ne mën nañee wax ne ñëwut ci sunna waaye jamono mooy laaj nga changer topp doxinu jamono dox doxinu jamono doo dox jamono yonent bi tey si tey boo takkee téere am na ñu naan la lii bidaa la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam defutoon ko am na ñoo xam ne xataa kurus boo ko téyee dañ naan la bidaa la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam defutoon ko te pourtant ñooñu di wax loolu ñëpp tey képp koo xam ne dangay aji màkk dangay dugg avion dem wàcc màkk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam pourtant mostu war avion dem màkk gëlëm la doon war kon bu fekkee takk téere bi daala téye kurus bi daala kon ñoom buñ nañ dox wala ñu ut gëlëm war ko dem te ñoom ñëpp nangu nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na jël lu mel ni bool mën nga ko tuddee bool ñi def ci ndox mu jàng alquran tëfli si jox ko nit mu raayoo wala mu sangoo loolu ñoom d'accord nañ ko li tax ñi bañ téere nag loolu mooy réer gi ndax mbooleem boroom xam-xam yi nga xam ne xam nañ sunna d'accord nañ ne alquran mën nga kaa takk waaye nag dafay am sart takk alquran bokkut ak takk bee jën wala takk bee taaw takk alquran dafa am sart ndax alquran waxi yàlla la boo koy takk benn boroom xam-xam nee na duñ tere jullit bi mu takk alquran su fekkee mun naa sàmmwanteeg ne du ko dugal ci sobe bu fekkee téere bi boo ko takkee doo ko dugal ci sobe foo xam ne palaasu sobe la loolu boobaa kenn du la ko tere te sax am na si ñoom ñoo xam ne nee nañ téere bi nga xam ne alquran lañ ko bindee boo ko xasee ëw boo duggeek moom ci duus itam dara nekkut ci am na si borom xam-xam yi loo loolu kon loolu dafay dellu ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne ixtilaafu ummati rahmatun wuutee gi sama xeet yu wuutee loolu yërmande la waaye nag bul gis ko takk téere nga ne ko bidaala lii dafa xaraam dafa nangam daganal ak xaraamal nekkut ci loxol jaam ndoxol yàlla la nekk mu wax ko yonent bi lépp loo xam ne sa niveau yeggut fa ci xam-xam taxaw ci nga tey ci waaye bul ko xaraamal wala nga daganal ko kon takk téere ñin duñ wax sax ne dagan na wala xaraam na waaye dama ne boroom xam-xam yu bari yoo xam ne ñu jàng alquran lañ ñu xam sunna lañ ñooñu daganal nañ ko téere boo xam ne alquran lañ koy bindee nga takk ko loolu loolu alquran bu fekkoon ne jàng ko rek la ak jullee ko konoon li ciy wàcc du nekk kaamil du toll comme ni mu toll alquran yàlla dafa wax ne wa nunassilu min alqurani maa huwa sifaun wa rahmatun lil alamina danañ wàccee ci alquran loo xam ne faj lay doon sifa mooy faj ak yërmande ñaal moo mbooleem jullit ñi mbooleem àdduna bi kon alquran loo ci xamut yaa ko ci xamagut loo ci xamut rek yaa ko ci xamagut takk téere daañ ko def alquran daañ ko bind sangoo ko daañ ko bind naan ko daañ ko bind takk ko ndax bu fekkee ne takk alquran daganut konoon loolu loolu boroom xam-xam yi àddunañ ci takk alquran ñun lu ñu lay mën a wax mooy dagan na su ko ku ko mën a weddi rek yow yaa accès gut ci niveau mën a jëriñoo alquran waaye alquran moom takk ko dara nekkut ci su fekkee mën ngaa sàmmante condition yi nga xam ne moom lañ lay tegal boo koy takk. Mhm. macha allah sëriñ bi euh, mbiri leer na lool lool lool ñu lay jaajëfal sa leeral googu euh, en plus tamit ñu ngi ñëw tamit ci wàllu cat euh, keroog tamit dugg nañ ci n'est-ce pas waaye nag jotuñu ci leeral ndax da nga ko résumé rek après ñu daal di ñu daal di koy tënk n'est-ce pas fu mu ne nii bëgg nañ nga dugg ci wàllu cat wax ñu lan mooy cat cat lu muy def ci nit ak yan yan yan yan gàllankoor la ko mën a la ko ko mën a jox. cat boroom xam-xam yi dañoo wutee ci ne maanaam baat bi nga xam ne olof yi dañ koy utiliser di wax naan dëmm am na wala amut loolu boroom xam-xam yi wutee nañ ci am na ñu ne dëmm amut ndax alxuraan tuddut ko làmmiñ bu aay la tudd am na ñu ne am na loolu wutee la xalaa kulli xaalin cat moom lu am la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sama xeet wi buñ fekkee ne ñett ñu dee ci sama xeet wi ñaar ñi bëta leen rey ak làmmiñ nee na làmmiñ nee na bët ak làmmiñ mooy cat dana topp gëlam ba dugal ko ci cin mooy dana ko topp ba rey ko cat lu am la lu existe la te li muy yàq sax rab yàqut ko te dañoo bokk benn phénomène bu ñuy yàqee ñoom ñaar gis nga nit dana sol lu rafet nga tudd ko am lu ko ci topp te cat mu ngi gën a jóge ci ñi nga xam ne seen làmmiñ yi duñ ci tudd yàlla lu bari koo xam ne du tudd yàlla lu bari ba pare lum gis ne ndaw lu rafet ndaw nangam lum gis rek tudd ko te dañoo faral yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne lépp loo gis mu taaru boo koy tudd boo ne macha allah nee na cat dana mucc si loolu kon cat lu am la ndax nettali nañ benn xissa si jamono yonent bi sallallahu alayhi sallam koo xam ne dafa soloon yére yu rafet rek romb ay nit am ku ne ah diw sàngam de yërëm bii rafet na rek kooku seqi ay paa rek daanu bim daanoo yonent bi sallallahu alayhi ñëw mu ne ndax dafa am ku ngeen ci wóola di ñu ne ko waaw diw sàngam mu ne dem leen indil ma ndox ñi indi ndox mu wax ko ne ko na tooyal maanaam cëri njàppam yi mu raxas gémmiñam raxas kar kanamam raxas loxoom comme ni cëri njàpp yooyu ñu raxas ba mu pare yonent bi jël ndox moomu sotti ko waa ji waa ji daal di jot loolu cat la cat moo koy def jamono bi cat nit dana nekk milliardaire bu amul kaaraange dëgg-dëgg ak lu koy musal ci cat dafay dem ba yàqule nit dana dem ba siiw yàlla dogal ay nit ñoo xam ne dañ koy catu mu fay ba mel ni safara boo xam ne dañ ci sotti ndox te cat bu jàppee nit gis nga cat kenn rek moo ci mën a mucc mooy koo xam ne am nga lu lay musal si cat danga dégg sax léeg-léeg ma dégg benn nit buy jëflanteek man na ma cat moom dégg naa kenn mënul ci mucc ma ne ko loolu ay wax la cat rek lañ mën a mucc wala ku ñëw na la liggéey moom kenn mënu cee mucc ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax liggéeyoon nañ ko jàpp ko ma ne ko yonent bi sallallahu moom la yàlla yónni ci ñin wax ñi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dama yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci yéen pour mu nekk seen référence ma ne ko yonent bi dafa ñëw pour jàngal ñi gis nga alquran bi ma ne ko ah, ma ne ko luy musal nit si catang si luy musal nit ci liggéey mu ci boo ko xamut nag xamagoo ko gis nga am na loo xam ne képp ku koy jëfandikoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam pourtant wax na ko am na loo xam ne képp ku koy jëfandikoo yàlla dana la musal si cet am na itam ci alxuraan loo xam ne képp ku koy jëfandikoo yàlla dana la musal ci liggéey kon cat moom lu am la te mu ngi gën a mën a yàqal te cat dana yàqal ku am dana yàqal ku amut dana yàqal ku rafet dana yàqal ku ñaaw nit dana ñaaw sax ñi catu ko mu yàqulu yàqule parce que ak xool gi ñuy xool say mbir bët bu aay yonent bi salaay salaam d'accord na ne am na làmmiñ bu aay itam am na am na ñoo xam ne dañ ne nag dëmm amut waaye bët bu aay moo am ak làmmiñ bu aay te bët bu aay ak làmmiñ bu aay si la cat di jóge yàlla nañu ci yàlla musal macha allah kon serigne bi wa kon leer na ci walu chat kon donc kum mu rek wa mën nga doxal ci fi ci Thiaroye Azur ah, seet serigne mahamadou Mouhamadou Mbaye n'est-ce pas ne la ci musul bu baax a baax ah, serigne bi ñu demal ci sunu troisième numéro mooy ah, wàllu néew kattan mu nekk loo xam ne tey lim na jamono bi trop trop trop sëy tey sëyu tas lu upp ci sëy 99 pour tas ci walu new katan la ci walu ci ku gor ki n'est-ce pas loolu nak lañ bo nga indi ci leeral ak saafaram lu bari laal nga loo xam ne lu bari la lu dal askan wi la nga xam ne dana sabab sax nit ki dem njaalo ji jigéen jëkkëram dana néew kàttan munut kaa jox lim soxla loolu puuse ko bam dem di njaalo te lu lëmbeel askan wi la li ko waral bëri na cause yi ko waral bëri na te néew kàttan dafa bari ay façon néew kàttan dana ñëwee nit ki comme buy sëy ak soxnaam du mën a yàgg même pas deux minutes mu jot boppam néew kàttan dana ñëwee nit ki dana mën a jogal waaye sàkkaraam du dëgër loolu ci néew kàttan la néew kàttan dana ñëwee sax nit ki du am sax envie def rapport sexuel néew kàttan dana ñëwee nit ki buy def rapport sexuel du ko mën maanaam daf du mën a def rapport sexuel boobu la ñuy tuddee yoom boo demee Saalum moom la ñuy tuddee yoon yoom boobu sax du néew kàttan yoom la mooy nit boo xam ne sàkkaraam dafa mëntu sëy dafa mëntu jogal kooku yoom la buñ ne néew kàttan rek nag mooy koo xam ne mun na sëy waaye comme li ma la wax nii la koy ñëwee buy sëy day gaaw a jot boppam walla bu jogalee du dëgër walla mu ñëwee ko

kooku du faj problème boobu daf koy yokk ndax bis bu amatul loolu ni affaire yi lase woon dafay gën lase waaye koo xam ne dafay sëy ñaar ñoo ko séq sëy yàlla dafa boole góor ak jigéen ñi sëy yàlla wax na ne maal bind doomu aadama def ci ñoom góor ak jigéen ñi nekk ay peuple peuple boobu pour muy man di am ci sëy rek la man di amee sëy boobu ñaar ñi ko séq bu fekkee chaque fois kenn ki rek mooy am bànneex keneen ki nga xam ne du am bànneex dafay mujj tayal te mën na ko pousser mu dem uti keneen ku ko mën a jox bànneex bépp góor boo xam ne néew kàttan daf laa dal ñun am nañ ci traitement boo xam ne ci alquran la ci alquran lañ koy liggéeyee te sax am na sax doos boo xam ne dañ tere ñi yegg fa ci biir secret yi ñu ci am dañ naan la bul mos a romb dosage bi si wàllu fii parce que dañuy bañ. góor gi dem ba tollu foo xam ne jigéen ji dootut ko mën a dékku waaye loolu faj lay doon du doon loo xam ne dañ lay jox loo xam ne da nga koy naan tey tey yëg sa bopp noonoo non ñun dañ koy faj ba nga xam ne dafay def effet di dëñ di dëñ ndànk-ndànk ba nga xam ne nit ki bu fekkee deux minutes la doon sëy di jot boppam mun naa dem bay sëy sept minutes ba dix minutes di door di jot boppam loolu sax dafay nekk koo xam ne dafay gëj a sëy waaye bu fekkee koo xam ne la dafay sëy tey sëy suba mun na dem bay sëy loo xam ne dafay ëpp loolu ci diire bi loolu nag faj lañ koy def ba mu wér képp kuñ ko fajal même bu fekkee rab a ko def sax ñun dañ koy dindi fekkee néew kàttan bi góor gi mu dal rab moo tax mu néew kàttan ñun dañ koy dindi ndax alquran moom ak rab moom macha allah damay wax ne sax alxuraan moo mën a faj rab alquran ak rab rab boo xam ne dafa dugg nit ki di ko yàqal alquran bu ko fekkee ci biir dafay mel ni safara ci moom daf koy lakk dafay génn complètement dañ ko faj nag ba nga xam ne nit ki kàttan bi muy am noonu naturel lay doon ci moom dootul soxla muy utiliser dara te chaque estant buy jogalee dafay dëgër te dana mën a diire bu yàgg dana mën a satisfaire ki nga xam ne moom la séq ndax ñaar ñoo xam ne dañoo séq ku góor moom temps bu jotee boppam am na bànneex waaye ndax jigéen gi am na bànneex wala amut bànneex te bu fekkee ku jigéen ki amul bànneex loolu dana tax ñàkk juboo am ci kër gi dana tax ku jigéen ki mën naa dem njaalo ji dana waral lu bëree bëree bëri te causes yi waral euh, néew kàttan am na si beneen boo xam ne tudduñ ko woon mooy lekk yi nga xam ne jamono bi ni ñaa ngi koy lekk nit dafa war a xam lan la war di dundee pour di di faj boppam ndax alimentation yi nga xam ne ni ñaa ngi koy jël di ko lekk li nga xam ne ni ñaa ngi koy lekk di ko dundee am na si yoo xam ne sax buñ ko digalé nit ki te yegg wut ci ñin bu koy jëfëndiko bu féké dafa néwon katan dana réglé problème mu néw katan bi mu amoon yépp bala muy yegg si ñin bu féké du rap bu féké du rap amna lo xamné mën nañ ko ko wax rek du aaju sax ñi defal ko dara dañ ko kay wax rek mom mu dem di ko bu koy def bu xeyé suba tél ak bala muy tëdd bala mat une semaine rek dana gis né néw katan bi mu néwon katan dana deñ ñaka bëri ndox ndox mi ñuy tuddee mën niyu ñàkk a bëri ci góor dana tax sax nit ki néew kàttan temps bu ndoxam mën niyu bi yokkee rek nit ki kàttanam ci wàllu sëy dafay yokk kon donc macha allah wàllu kàttan ci wàllu sëy yàlla ñi si dimbale am na sax ñoo xam ne dañuy yaakaar ne dañ leen a takk xala xalaa am na am na ñoo xam ne dañuy yaakaar ne dañ leen a takk xala fekk du takk xala ñoom ñoo feebul ci wàllu sëy néew kàttan rek moo leen dal kon donc ñin loolu ñu ngi siy jëflanteeg jaamu yàlla yi te képp koo xam ne jëflante nañ seeg yow lu may wax duñ la ko fajal ci benn fan duñ la ko fajal ci ñaari fan waaye daañ la traité ba nga wér te ci al alquranul karim lañ lay traité te boo wéree rek da nga xam ne macha allah. macha allah bi waa tey yow looy conseiller mooy jigéen yoo xam ne dañoo nekk ci sëy euh, seen dëkk daal di néew kattan lool wala dañoo leen satisfaire ci sëy ñooñu tey loolu du conseil. li ma leen di wax mooy ne solution am na ci loolu buñ yaakaar ne. Euh, da nga gis koo xam ne daf naa la man wër naa ba sonn awma ci benn solution man képp koo xam ne jëflante naa ak moom ci wàllu kàttan ci wàllu sëy da gis sa bopp am na ñoo xam ne ay jigéen lañ dañ ma koy proposé na ma euh, sama jëkkër dafa néew kàttan ci wàllu sëy buy sëy ak man benn yoon lay mën a sëy si guddi gi te benn yoon bi sax duma si jot sama bopp loolu kanaa amula ci garab am na ñoo xam ne ñooy mujj jël seen jëkkër ànd ak ñoom ñëw buñ ñëwee dama leen di defaral traitement bi traitement bi ñaari yoon rek la bu benn bi jeexee ñu jël si beneen bi du doon garab boo xam ne dafay am euh, gaañ du doon garab boo xam ne damay dem jël ay sunguf ak ay kii rek ñëw jox la ko ngay mëq rek di ko jëmale fu kenn xamul dama ne alquranul karim lay bind am na lim bu ñuy bind ci alquranul karim am na luñ koy booleeg buñ ko ko joxee bu koy naan lépp loo xam ne problème la ci wàllu néew kàttan dana ko régler bu dee rab la dana ko regle bu dee ñàkk mën a yàgg la dana ko régler bu dee mën yu bu tuuti la dana ko regle te loolu ci alquran lay doon euh, kon képp koo xam ne bépp jigéen boo xam ne maa ngi lay conseillé loolu dal na sa borom kër waxtaan seeg moom nga jóg dem wut ci solution ndax yàlla wàccewut benn jàngoro ci ko suuf lu mooy ne wàccee na saafara bi yàlla sax dafa wax ne jàngoro bu may wàccee dana fekk saafaraam nekk fa ba pere saafara bi daf fay nekk jàngoro bi door a wàcc kon euh, bokk na ci sàggan nga naan euh, lii de amul solution mu lay pousser si mooy yàlla nga bàyyi fi sa jëkkër ci wàllu ndax dafa néew kàttan dem di ko séq ak keneen koo xam ne ëllëg yàlla daf la ciy bindal bàkkaar di la ci mbugale kon maa ngi ci conseil képp koo xam ne dal na la muy góor muy jigéen te néew kàttan attention nu mu amee ci góor noonu lay amee si jigéen jigéen dana néew kàttan jigéen dana néew kàttan mooy lan jigéen dana sëy da nga gis jigéen boo xam ne jëkkëram dafay du néew kàttan mais jigéen bi bi si boppam moo naan la man temps bu may sëy rek méthode rek laa ci am des fois xat dana ko waral waaye des fois du doon xat jigéen dafa am ndox buy nekk ci moom di génn loolu moo koy jox bànneex mooy tooyal kanamam mooy tax itam góor gi di mën a sëy ak moom te du am benn jafe-jafe am na jigéen ñoo xam ne loolu lañ manqué loolu nag ñun dañ cee am solution boo xam ne bu ko nit ki di jëfandikoo balaa mat une semaine bu dee jigéen la dana commencé buy sëy ak jëkkëram dana gis bu si amutoon bànneex dana ci am bànneex ba xam ne jëkkëram sax dana xam ne kii nii léegi mu ngi commencé di am bànneex ci sëy bii may sëy ak moom kon donc néew kàttan dana dal góor dana dal jigéen ok macha allah kon euh, sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal ci leeral yooyu man moom juste rek une question boo xam ne moom laay jox euh, xale jigéen yoo xam ne ñoo ne ci sëy n'est-ce pas leen xamal ne couple dafa nekk loo xam ne tey yàlla da boole pour bànneex buy am wala naqar buy am kon donc nga ndekk sa jëkkër euh, ba ba loolu daal di dal nga daal di koy ginnaaw wala bu liggéey jee nga woo benn waay n'est-ce ko ci kër gi loolu nekk loo xam lu ñaaw la n'est-ce pas solution am na fi sëriñ Mouhamadou Mbaye mu fi n'est-ce pas doxantu rek ba caari azur incha allah dina la saafaraal sa jàngoro waaw sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Euh, ci ci tomb mujj rek mooy ci wàllum noob euh, arab daan ko al attachir ah, la ko arab di wax di moom la ko arab di wax moom la ñuy wax noob n'est-ce pas ñu la ciy laaj lan mooy noob sëriñ bi. Euh, tasxiir tasxiir lu yaatu la tasxiir buñ la ko doon firil mooy ne tàggatal la nit ki nga def loo xam ne yàlla daf lay tàggatal nit ki tàggatal la ko ba loo wax mu def ko loo ko sant mu def ko sa waaw rek lay déglu. loolu ñi ko soxla dafa bëri loolu jëkkër ak jabar soxla nañ ko da nga gis couple yoo xam ne xuloo rekk lay doon ak xeex loolu li koy waral dafa bëri tashxiir nag solution la pour yàlla dëppale ñaari xol yi way dencante yi da nga gis sax koo xam ne dana utiliser si tashxiir loo xam ne Euh, dafay gis nit bëgg ko te fekk kooku jubluwut ko mu dem ci sëriñ ñi defal ko tasxiir pour kooku jublu ko bu ko déggatul du am jàmm euh, moo tax tasxiir baax na ci góor baax na ci jigéen nit boo ko xasee bëgg nga gis ne des na la jublu cent pour cent da nga war a jog ñaan yàlla lu leen dëppale boole leen loolu dagan na ndax yonent bi sallallahu wax na ne benn fen daganut ci lislaam lu mooy ñaar ñoo xam ne dañoo jotee am problème am ku jóg dem di yéwénal seen diggante yokk ci wax ji dara nee na fen boobu rek moo dagan ci lislaam kon donc rawatina nag boo amee loo xam ne boo ko defee ñoom ñaar ñi juboo nekk ci jàmm ak salaam kon tasxiir donc lu dagan la ci lislaam te solution bi mooy tasxiir boo xam ne alquran la ndax tasxiir boo xam ne alquran la nu muy gën di diiree day gën di yàgg nu muy gën di diiree rek day gën di yàgg macha allah. Euh, macha allah sëriñ bi wa leer na nañ ci wàllub euh, nopp tubaab euh, alxuraan naa tashhir n'est-ce pas lolou mom lu baax la ci sey luy djubole ñaari couple la lolou c'est bien bien Wa sëñ bi nak ñu ngi soxlawoon nga jox ñu son numéro n'est-ce pas pour ñu lay sétane mun am sa Cheikh Mohamed ñu ngi leen di remercier d'abord di wax ne yalla na yalla fay leen yalla yagal leen fi dëgëral sen site bi ñi ngi ñaanal mbollem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaanal Sénégal yalla def fi jàmm ak salam seen numéro mu ngi nekk 77 157 54 54 wala nga def 77 929 13 59 loolu mooy seen numéro yi ku ñu si woo rek da ñuy jot incha allah. waaleykum salaam wa waa waaw ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen numéro à la prochaine incha allah.